Walf Quotidien Abdoulaye dafa xëyee dellu siwaat ci tànki ne ko yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall koy amal jamono ji fële ci New York yéen gi ne neexul ba neexul waaye mbiri jamono ji yëngu na ñi ko nag ñoom ñoo di militants yi fare ci parti bii di Pastef ñoom ñoo takku taxaw fas yéene saboté li boobu le noonu la ko yéen gi xëy fësale euh, yéen kon xëy dellu siwaat ci loolu leen tamit loo xam yéen gi Walf stratégie mhm. yéen a kaay kon xëy dellu ci loolu yi yéen a kaay gi xëy dellu siwaat ci caravane bi grand parti di amal préfet bu Dakar kon moom préfet bu Matam moom mujjee freiné gàkku euh, gannaaw daal bu ma xamee ne trouble à l'ordre bi la bëgg a ci dëkk boobu la noonu la ko yéene di Walf euh, bu dee yoor yéene di yor yor Abdoulaye dafa xëy dellu ci manifesté yi nga xam ñu ngi koy amal jamono ji fële New York yéene gi ne fièvre maanaam euh, jàngoro Euh, daanaka génn rëy néew mi euh, toxu na dem fële ci encore sax mën a la ci États-Unis euh, yéen a kaay gir yor ci loolu la xëy dellu si yéen a kaay geneen critique bu a kaay giri critique Abdoulaye dafa xëy dellu si waat ci campagne électorale a kaay gi moom Abdoulaye moom mi ban taxawaay la ténor yi nekk ci coalition bi war a am ci moom yéen a bu fekkente ne bëgg nañu Amadou Ba dégg wiw foom ñoom ténor yooyu la génn ci climatiseurs yi wàcc ci base wax ak ñoom Euh, bu laaj sax ñu génn ci seen gafaka dañ ko génne noonu la ko yéene kaay gii xëyee fesal Abdoulaye yéene kaay geneen Quotidien yéene kaay gii Quotidien xëyee dellu soit ci élection présidentielle 2024 yi ñuy dégmal yéen kaay gi ne ñu ngi jëm ci élection yoo xam dana métti lool ci biir parti bi di APR ndax donte le sax am nañu opposant waaye opposition bi gën a sis fës mooy opposition yi nekk seen biir yéen kaay ne APR daal moo fas yéene jàkkaarloog APR ci boppam noonu la ko yéen kaay di Sud Quotidien xëy fësal Abdoulaye yéen ci candidat approuvé bi nga xam ne maanaam ci candidat Amadou Ba mhm. euh, bi nga xam ne ni waa ay parti dañ ko nangu maanaam mooy parti yi nga xam ñoo bokk coalition Benno Bokk waaye dañu gis ne ne waa APR seen jëm bopp ñoo ci àndul yéen tax yéen kaay gi def zone moo ne APR combat Amadou Ba kaay kon ci loolu xëy dellu soir Abdoulaye. ma ngoog euh, le mandat. le mandat dafa xëy dellu ci démission kii di euh, Youssou muy jël kon daal euh, te jóge daal ci président Macky Sall gannaaw bu gisee ne ma ayam jeex na. yéen kaay gi ne ndax amul la waxut. noonu la ko yéen kaay gi di la mandat xëy fësalee. lu jëm nag ci contrôle parrainage bi yéen kaay gi di la mandat kon mu ngi wéy di artu opposition bi ngeen ñu xam ne ni logiciel boobu leen ndax jotul gaa yi xoraat ko yéen kaay gi boo xëyee dellu soir ci loolu yi Abdoulaye yéen kaay mi quotidien yéen kaay gii di réew mi xëyee dellu soir ci élection présidentielle 2024 yi ne PDS jamono ji dafa coincé ndax gis nañ que Maître Wade waxool na dina dellu soir fii ci biir réew mi mhm. te moom maître Abdoulaye ba tey yéeyul yàbbi ci kan moo war a wutu Karim Wade su fekkente ne euh, ñëwul ngir bokk ci élection présidentielle yi de yéen kaay gi ne neexul bu neexul waaye parti euh, PDS euh, PDS jamono ji Euh, dañoo ndar euh, képp noonu la ko yéenekaay gii di réew mi xëyee fi sëñ Abdoulaye source a lam ñu dikkee waaw bu dee yéenekaay gii di a dafa xëy euh, ne moom ngi nekk tax ay jéego su ko defee Aliou Ngouille ko defee a xëyee fi sëñ Abdoulaye yéenekaay geneen révélation yéenekaay ne révélation ne Mame jamono ji wéet na mhm. te dara warlu ko lu mooy déclaration de candidature

ñoo fi nekkoon Baye Fallou président Macky Sall. ci mm. plateau ci télévision yi di ko ja eh, di ko jëmal fu ne. ñooñu nag ñoo wëlbatiku tàmbale am beneen discours gannaaw ba ñu doon ay candidat ci élection présidentielle yi di ñëw yéen gi nag neexul ba neexul waaye te eh, politique daal dafa doy waar yéen gi ci loolu xëy dellu soit yéen gi nag sol daalam dama fële ci Diofior sa dëkk ba mm-hmm. amal ab taxaw seetlu jëmale ko ci poste de santé bu te waxtu wu nekk mën naa daanu ci kaw euh, euh, doomu aadama yi fa ne mm-hmm. nee na salle de soins ya fa ne maara day taali salle de patients yi naka noonu euh, de pansement yi naka noonu yeneen kaay gi li ci gën a daawaay mooy ñi nga xam ne patients yi dañuy daje sax ci benn salle d'hospitalisation mm-hmm. d'hospitalisation mm-hmm. xam ne dëkk biir Jofeer mu ngi koy jànkonteel ci wàllu santé Abdoulaye dafa xëyee dellu si ci épine maanaam bu ñu ko waxee maanaam ay genre dëgg yoo xam ne ni bu ñu deful nankoon dana dana feeñ ci élection yi lée ku ci mel ni Sonko ba tey jii Euh, waxuñu ne dana bokk wala du bokk waaye aussi eel équation la ci ki nga xam moom moo di euh, waa benn bokk yaakaar euh, waxi tamit ci interdiction caravane Gakou ak ay ñañoom Amadou Ba bi nga xam ne gannaaw ba ko tabb ba léegi gisuñu gisuñu ci moom mu def benn yëngu-yëngu noonu la ko yéen kaay gii di 24 heures xëy fi sala yéen kaay di enquête xëy dellu siwaat amoon ab taxaw seetlu ko ci ëllëgu CEDEAO gannaaw ba nga xam ne ni waa Burkina Faso waa Mali ba ci ñu waa Niger jël nañ jógal kon daal dafay génn taxawal seen kuréelu bopp Ah, ëllëgu nag CEDEAO yéen kaay gi xëy na kàddu jël na kàddu gi daal di koy jox monsieur Massiré Diop moom journaliste nekk fële ca Mali mhm. eh, ci yor nañu aussi joxe kaay gi di l'enquête Abdoulaye eh, Tribune lam ñu di soit ci campagne électorale yi eh, loolu junniy milliards nga xam ne dugaloon nañ ko mhm. ko jël daal di koy luubal yéen kaay gi nag loolu nag nekkul loo xam ne Sénégal dañ ko gën a dañ ko fàtte ba tax ñu jàpp campagne électorale bi Euh, mille milliards yi nga xam ne dañ koy luubal ci fonds force Covid 19 dana ci tar lool noonu la ko yéen kaay gi di tribune xëy fësal yéen yi tey ji lañ koy fas yéene tàmbali Paris Saint-Germain dina laale ak Dortmund mhm. Manchester City daal ak di étoile rouge. yéen a bi di suñu taxaw ci Modou Lo mi nga xam ne jamono ji nit ku taxaw la maanaam physiquement. Mhm. dafa taxaw mentalement aussi il est fort. yéen a kaay gi ne moom Modou Lo ne fu mu yéenam ak bëgg-bëggam daal mooy fexe ba conserver titre bi